Président, Monsieur le Ministre, euh, le budget de votre département est le deuxième budget avec 295 milliards, juste derrière l'éducation nationale, ce qui représente 8,27% des recettes et 2,26% du PIB. Mais ce budget, c'est également euh, le principal poste justificatif de la dette au Sénégal rien que pour jëlee terre bi ak autoroute Patte d'Oie AIBD AIBD Mbour nous ak Ila Touba ñu ngi 2036 milliards soit 25 de l'encours de la dette actuelle Si on compare les programmes, programme c'est pour corriger les déséquilibres parce que nous avons des ni biir réew mi dañ leen fàtte woon soo jëlee fu defe naa boo fa demee amul presque benn tali bu ñu de ñooñu li ñu leen jox ci cadre PUDC ak PUMA tuuti na trop par rapport ak li nga xam ne ñu ngi koy jagleel les grandes infrastructures de Dakar loolu yëpp nag day traduire benn échelle de priorité boo xam ne moom la ñu bailleurs yi di imposer parce que bailleurs yi je suis désolé de le dire du ñu xaritu Sénégal FMI du xaritu Sénégal les bailleurs bilatéraux du ñu xaritu Sénégal c'est des gens qui gèrent des intérêts

ñu am ay facilités yoo xam ne dañ mën a récupérer waat seen investissement bàyyi fi bor bi ak intérêt yi ñu koy fay ñett rek ci projet wane na ko bu njëkk mooy terre terre, bi biñ cool yi amee dañ leen ne terre bi dépassé na 568 milliards yi ñu waxoon ñu ne loolu la ma bind question écrite defe naa mon cher collègue Abdoulaye Daouda Diallo était ministre il m'a répondu mais confirmé woon na ni TER bi dépassé na 700 milliards mais nous ko taxes mais les taxes c'est des éléments du contrat les contrats sont libellés hors taxes et TTC tey vous le coût du terre, première phase bi dépasse dépassé 1 1000 milliards Vous tous les contrats que j'ai les contrat les montants initiaux les avenants transfermes les avenants transconditionnels terre dépasse dépassé na les 1000 milliards deuxième élément bi muy les délais de livraison du terre. bi ngeen koy lancé en 2016 da ngeen jox rendez-vous sénégalais yi euh, au mois de janvier 2019 janvier 2019 bi ngeen ñëwee da ngeen inauguré terre l'année. Si bu Macky Sall duggé ci terre bi dem vous bu dellusee santatuma Sonko ne leen terre bi du daw fi ak mois de juin ngeen joxaat rendez-vous mois de juin ne li ko waral mooy da ngeen def test six mois juin boobu ngeen joxewaat novembre novembre passé na jusqu'à présent pas de terre loolu wane na ni gouvernance boo xam ne dañ koy lal te joxe de mauvaises informations au peuple loolu daxalul ab réew ñetteel bi mooy l'autoroute à péage monsieur le ministre dama bëgg a xam ndax Eiffage dafa am lu mu yëngal naanal leen ko alors, est-ce que lan un problème parce qu'un ouvrage vous 354 milliards FHDF, 65 milliards quest c'est ñu jox exclusivité pour 30 ans. merci merci bien merci. Nous passons la parole à notre, s'il vous plaît, Adja Djara Mergan notre collègue Maître Dibuvoir se prépare. Je vous remercie, Monsieur le Président, euh, Monsieur le Ministre des Infrastructures, du Transport, désenclavement, monsieur le ministre des Finances, monsieur le ministre du Travail et du Dialogue Social, collaborateur, chers collaborateurs des ministres et collaboratrices monsieur le ministre ginnaaw ba la nuyoo damay rafetlu liggéey say collaborateurs rawatina ki nga xam directeur AGEROUTE muy Ibrahima Ndiaye di liggéey liggéey bu am solo euh, di directeur CETUD di nuyu également monsieur le ministre Abdou Ndene, di monsieur le secrétaire d'État di également DG Dakar Dem monsieur le ministre dama lay féliciter di le président Macky Sall ndax tay xol nañ li xew Vous ak barki demb ki nga FMI directrice bi wax lu am solo ci ndax Sénégal.